تركت ما كان لي بغير مبتغيا ما علم لي يا بحاجتي لنا تركت ما كان لي بغير مبتغيا ما علم لي يا بحاجتي لنا فجاء أبويا رزاق يا مليك jégalu nag ndax xam naa léegi ñu woote julli gi ñun Baay Faal yi ñun xawma kon ñuy def waaye <laughs> bu wootee ñu jóg rek ànd ci barkeel aùzu ah, billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ak sëñ Tuubaa ak maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi ziyaare sang sang yi ñu fi fekk Euh, ci jiitu sëñ Maam Moor di siyaare sang yim àndal di siyaare sunu mbokki taalibe yi jóge ci àdduna sépp ñëw fii euh, di jéem nag di wax ci turu Allemagne duma jëwriñ ji nag waaye sama mbokki taalibe ya nekk foofu ñoo ma ne man ngaa dem rek sànni ci ay kàddu looloo tax ma di ko jéem fii euh, bala maa tàmbali itam damay féliciter sunu mbokki taalibe yi jóge Cincinnati ak jëf ju rafet ji ñu def foofu te ni ko sëñ bi waxe rek noonu la àdduna si ñun taalibe sëriñ Touba yi luñ jéem war nañ koo man bu ñu xoolee toujours sëriñ tuubaa na mu doon doxale te lu ñuy def it ñu teg sëñ tuubaa sunu kanam bu ñu ko defee rek luñ jéem àttan nañ ko te fii ñu toog tey wan nañu ko ndax ku ci nekk ci ñun ci ñun âge yi ñu toll ñu ci bari ci daara yi traditionnel yi lañ daan jaar te tey ab amphithéâtre lañ nekk boo xam ni yaakaar naa ni ñun ñoo ko defaral suñu bopp mën nañ koo wax ci initiative sëñ moor mi nekk fii donc initiative yooyu tam ñun moom lañ mas di topp di ko gis ci waa di waa ndax sëñ Mourtada ma fa njëkk a ñëw 1995 ci ñun li ñu xam am na sax ñëw bu ko jiitu waaye ñëw bi mu ñëwoon di seet si taalibe yi 1995 la woon ñun ñii ñu ci bari mu xëccaat ñu tegaat ñu ci yoon wi nga xam ni moo jara dox doxe mooy yoon wi jëm ci sunu borom yàlla mooy li ñu sëñ Maamoor di wax ni biñ ko àndee ak sëñ Murtada ba tàmbali fa kër googee nga xam ni mooñ ci joxoon digal yàlla def ab dogalam sëñ Maamoor ñëw jël ànd kook ñun teggiwul tànkam benn yoon loolee yoon woowee ñu waajuram tegoon mu gën ñu cee tegaat initiative yee nga xam ne moom la sëñ Murtada doon lancé ak vision boobee mu amoon mu gën koo dëgëral ñun looloo taxit ñu topp gën a topp ndigal ab taalibe moom topp ndigal rekk a ko war waaye ci xalifa yi yaakaar naa sëñ Sidi Moxtaar la woon moo ñu moo joxe woon ndigal la ne yéen ñi nekk bitim réew sëriñ Maam Moor laa leen booleel mooy sunu jëwriñ mooy suñu lépp kon ñun waruñoo xool feneen lépp lu ñuy jëf lépp lu ñuy def ci sëriñ Maam Moor lañ ko war a jaarale ànd kook moom te yaakaar naa ñi nekk fii ak yeneen daayira yi jotagul egg si ñoom ñépp ñu ngi ci te man de wax dëgg yàlla fu ma nekk damay jéem toujours di rappeler vision sëñ Mourtada bi ak vision bi nga xam ne sëñ Mamor am na ko mu jëm ci mbirum njàng mu jëm ci defar taalibe yi bañ gën a nekk tegu ci yoon wi nga xam ni mooy yoon wi nga xam ni dafa dafa boole spiritualité mais boole aussi li nga xam ni moom lañ soxla spiritualité sax boo ko waxee lépp la waaye ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ci àdduna si di fi jëf di fi yëngu di defar lépp war nañ ko man te duñ génn yoon wi nga xam ni moom la ñu sëñ sëñ sëñ Touba teg lool foofu la ñu sëñ Maamoor di teg damay rappeler toujours gone yi nga xam ne ñi ngi jànge ci daara yu mel nii di nekk ci université yi yu mel nii di fi jànge di fi génne nekk ay ingénieur imam ay ay médecin imam dina ñëw ak des techniciens imam loolu dafa bokk ci li nga xam ni ci vision sëñ Mourtala la bokkoon sëñ Mamor continuer ko donc ñun ñi nga xam ni ñoo nekk tam bitim réew di ànd ak sëñ Mamor ci liggéey bi dañu war tam liggéey boobu ñu gëstu ko xool ñun ñépp nuñ ci mën a ànde ak moom ba loolu gën a taxaw parce que loolu tam nekk na lu am importance parce que ñun ñi fi nekk ñëpp ku nekk am nga fi buntu kër ku nekk mën ngaa dem sa sëriñ joxe fa àddiya ku nekk mën ngaa dem sa kër liggéey fa mais lii dafa nekk ab union boo xam ne buñ ko àndee dina mën a gën a gaaw won àdduna si ay mbir yoo xam ne ci njàngaleem sëñ Touba la parce que ku nekk xam na ne sëñ Touba dàq julli ku nekk xam na sëñ Touba position ci ci mbirum diine mi waaye côté àdduna bi tam sëñ Touba def na ci jàngale na ci loo xam ne ñun buñ ko gëstoo war nañ cee taxaw taxawaay boo xam ne àdduna sépp dañ ñuy gis àdduna sépp dañ fiy joxe bon exemple te loolu sëñ baa ngi ci yoon woowu nañ ko ànd ñun ñëpp di gërëmaat ñëpp rek di sant ñëpp di jéggulu ñëpp di leen xamal ne daal waa Touba almaañ mbooloo ma bariwul ci nombre waaye Pastef ba am na fa ñu ngi jéem lu ñu man di ànd tey am naa kontaante bu rëy ay xat-xat yiñ daan am sax naan noor ak sud loolu lépp amatu fa noor Allemagne ak sud Allemagne ñoo ànd fii tey ñëw wuy si sëñ Mamor fas yéene tam dem ziyaara yi sëñ taxa loolu di lu rafet di liggéeyub sëñ Mamor parce que toujours fu mu taxaw ci àdduna si dañ naan njabootug sëñ Tuubaa gi ànd leen liggéeyal sëñ Touba ànd leen topp ci ndigal yi te bàyyi tere yi noonu ko waajuram muy doon defe ñun daal ñu ngi leen di tàllal suñu loxo di bëgg fas yéene ànd ak yéen ci liggéey bi te liggéey boobu tam boole leen ci fii ñu nekk nii voilà. Raja